pare wuñu dara pour jàkkaarloog problème mu Sénégal pour jàkkaarlook problème askan wi c'est ça l'impression que ça donne maintenant comme on est sur le chemin on les attend on mais il faut avouer que jusqu'à aujourd'hui gisuñu li nga xam ni dal na xel maa ngi ñu ngi ciy wax démb benn waay bu ñu posé boobu question mu ni ci bu naree neex bu baxee xeeñ est-ce que xeeñ na moi je dis que xeeñu c'est ma réponse ci 100 jours yi ñu fi def ñu dugg ci appréciation wu ñetti weer yi. 100 jours yi 100 jours yi dara xeeñu la ci lu neex. non du question 100 jours loolu génn nañ ci. d'accord génn nañ ci. c'est un phénomène que nous avons devant nous bi nga xam ni li mu indi yëpp liñ ciy liñ ciy gis ëpp na problème mu 100 jours problématique gu 100 parce que loolu amul xam nga dama tëb benn réponse du ma la wax ni la ñoom ñoo ni woon bëgguñu 100 jours ku ñëw ci réew mi ngeen jot jot kii bi. laaj leen ko ci teew mi teew mu indi leen li mu leen dig ci teew mi teew mu indi li mu wax kon dama koy évacuer gis nga demaa boobu mm. suñ ci suuloo rek du ñu dem man dama bëgg nit ñi comprendre ni il y a problème waaw du ay problème ay 100 jours ay ceci cela bon il y a problème démb je parlais de la réaction de Amadou Ba peut-être na qu'on y reviendra qui dit qu'il faut leur donner le temps de ceci cela mais si loolu dafa dafa jaaduwul fii ñu toll parce que ki nga koy ci loolu yow xam nga ni fii ñu toll nii waroon na xelu askan bi waroon na commencer dal ñu dugg dans une normalité. mais y a aussi les réalités du pouvoir yi ñu bëri jàpp ne effectivement moo leen dab parce que xëy na ba nekkee ci biti naan euh, ñii waroon nañu mën a régler lii ñàkk volonté politique la xamuñu woon li ci nekk bi ñu ñëwee par exemple pour la baisse des denrées de première nécessité ils ont été confrontés euh, aux réalités du pouvoir. du noonu. ah oui du noonu du noonu lii ñuy wax lii du débat wax naa la sooy ñëw ci réew nga ni yow homme d'état nga da ngay yore réew. question yi kenn la ko laajil confronté à la réalité ils ont parlé de tout bañ nañ ko ba nee nañu ñoom gëmuñu réalité politique. ñoom fulla ak fayda ak jom ak xam ak mën. ak loolu lañu loolu lañu loolu mais bu demee nag ba ci biir li ci gasax di ñàkk xam li nga xam ni moom nga tiim lu mu doon nga xam ñàkk xam njëg njëgu benn produit booy nu mu articuler fu muy jóge mm. ñàkk xam structure prix yi ñàkk xam. problème yi nu mu tëddee ak lépp li nga xam da ciy articulé mais day day doy waar day doy waar vous m'excusez je ne suis pas le patron de Pastef mais suñ ma nommé président de la République au moment où il arrivait je n'aurais pas eu cette cette euh, nu mu encore cette infirmité là dinaa xam fu may teg sama tànk au départ et c'est assuré il y a beaucoup de Sénégalais qui sont là yi nga xam ni comme man mën nañu affirmer que ni j'aurais été à la place de Ousmane Sonko ou à la place de Diomaye du wow nan la doon demee kon. day dem ci normalité parce que dinaay xam d'abord su may waaj dinaa xam lu may waaj mais li ma dese déjà te waajuma moo tax may mën na ni ñii fu ñu jëme réew mi la critique que je fais à l'endroit de ces gens objective parce que xam naa administration mais xam naa état pour le parcours que j'ai fait en tant que fonctionnaire mais pour le parcours que j'ai fait à m'intéresser à la chose politique xam naa état nu mu demee. pour résumer tey lan mooy ñoom. mais lii seen lépp mooy seen problème ni naa la taxa amuñu taxawaay quand un premier ministre confond le temps de la parole et le temps du silence fi mu war a waxee ak fi mu war a noppee quand il confond son rôle et le rôle du président de la République quand le président de la République est absent de la scène quand les politiques ne peuvent pas être référés à quelque chose bi nga xam ni dafa waroon pare bu yàgg te nee ngeen depuis dix ans yéen ngi ciy liggéey. le projet mais le projet quoi. quand vous annoncez que c'est des milliers de personnes qui ont travaillé là-dessus ils ont même un problème avec dire la vérité ça veut dire que ñoom bi ñu taxawee woon di naxaate di manipuler noonu la ñëwee ci nguur gi war a continuer nag léegi lépp lu ñu yëkkati rek ci nguur gi mënoo wóor ni dañ koy def ba ci réduction des comptes bi ñuy wax ils sont plus dans la manipulation que dans la vérité de la réduction des comptes. Ah, ah oui lan moo koy dem nous attendons. mu doon apponti le ministre de la justice joxe ay assurance non mais depuis que on parle de ça on a touché plusieurs dossiers yi nga xam ni c'est des dossiers sensibles selon eux on a touché au dossier foncier tout ce qu'on a eu là-dedans ça a valu à bu ñu tuddee encore Bah Diakhaté se en prison pourquoi parce que c'est dans ces dédales-là et consorts qu'on a trouvé à dire que dafa wax mais on a touché à la réduction des comptes on a dit cent mille fois que rapport yi dina wàcc ba mu jigi ñu nettey leen ba mu jigi ñu indi nun le ministre de la justice a donné des assurances liñ leen wax lu simple la du nii une seen des comptes c'est un exercice simple facile soo ko politiser dafa am leneen looy wut tu cherches à détourner l'attention askan wi ci leneen parce que li mooy xaar ci yow indi woo ko donc dès l'instant où objet bi nekkee noonu mais tu passes complètement à côté nous les attendons sur cette question-là et nombreux sont les Sénégalais qui leur ont dit mais passez à autre chose d'essentiel su amee ñu sàcc fii xaalisu askan bi tëj leen leen tëj leen leen mettez-les en prison ce n'est rien d'extraordinaire mais su fekkee da ngeen bëgg di woy ci loolu di mbiib ci loolu nekk ci rek di jaxase c'est vous le problème ce sont eux qui ont un problème et ce sont eux qui sont le problème ce n'est pas la réduction des comptes ce n'est pas le foncier ce de tout cela et même dans les dossiers qu'ils ont soulevés il y de choses à dire mais ce qu'on leur demande jàkkaarloo nekk Sénégal ngeen téye ko jàkkaarloo nekk askan wi ngeen régler problème mu dal le reste maintenant on verra. pourtant commencé nañu ak le coût de la vie wala pour yow loolu doyul. commencé nañu. ak euh, njëgu dund gi ñu wàññi. no mais non. Euh, dama bëgg ñu avancer waaye wax ci yeneen këfin quoi parce que. Euh, non mais am na ñu jàpp ne loolu jéego la wàññi on si on reste là ñun nous, nous nous jouons sur le même tableau que nous nous les aidons affaire de la diversion. Mm. yëpp Sénégal yëpp xam nañ ni wàññi wuñ fi dara parce que soo jëlee rek à titre indicatif li nit ñiy wax ci mbedd mi mooy Sénégal gi dafa metti dafa saf. Mm-hmm. fii jaaxal nañu kenn xamatul où tu mets njëg yi ñu waxoon dafay wàññi nañ ko au contraire dafay yokku. Sénégal gi ñu waxoon ni dina neex au contraire dafa gën a metti mais si on se réfère à chaque chacun de nous am na fooy mesurer donc vraiment moi je crois que ce qu'il nous revient de responsabilité c'est de parler de ce pays-là pour que ñoom ñu gis ni kenn bàyyiwu leen ñuy continuer di nax nit ñi comme ni leen naxoon bi nekk opposition noonu jublu ci réew mi jublu ci li nga xam ne moom la askan bi xaar ci ñoom chacun de nous ici, en tant que patriote, est prêt à les regarder faire quand le travail qu'ils font vont dans le sens de servir correctement le pays. Mmh. Mais personne n'est prêt à les laisser manœuvrer comme ils l'ont fait quand ils étaient dans l'opposition. kenn du leen bàyyeeti ñu nekk ci biir askan wi di jaxase xel yi di jaxase nit ñi di indi ay ay di taal ba noppi di lay yi ba noppi mel ni kenn newu fi ñoom rek ñoo fi nekk c'était possible tant que askan wi tey woon dal taxaw mais tey ce n'est arrestation wu Bah Diakhaté yaa ngi koy tudd sànq mais keneen arrêté